Euh, Chérif Ablaye Cissé di waxtaanee euh, actualité muy euh, mbiram kuy sol bu avocat général boo xam ne dañu koo daal yóbbu retraite gaaw mbiram escroquerie waaye itam leneen loo xam ne ñu ngi koy tudd fan yëpp muy actualité coowal escroquerie ak ki doon imité signature Mame Boye Diao waaw muy yenn ci xeetu fonctionnaire yu ñu tuddee ñu ci nekk ci administration bi ñu ñu ñu naw leen trop semaine bi nag déjà mhm. dégg nañ fi ministre de la justice na Sénégal en matière de bonne gouvernance référence ñoo jiitu sax France ak Amérique ci mm-hmm. classement yi ñu ne ñoom ñoo jël paie en ci même semaine bi ñu dégg fi ñaari affaire mm-hmm. yoo xamante ni dañ bëgg a taxaw benn mm-hmm. bi moom mooy Habib Samba Laobé Aw tudd moom nekkoon avocat général ci cour d'appel bu Saint-Louis démb nag suñ naataango yi Le Quotidien dañ ñu xamal ne dañ dañ def mise à la retraite forcée ndax dañ ko doon tudd ci mbiram njuuj njaaj escroquerie ci wàllu ci jiiñ euh, wàllu escroquerie bu dee citoyen lambda nga yoon da lay teg daan ñu yóbbu la ca lu tax bu fekkente ni magistrat moom déjà retraite ba da ngay continuer di am say avantage xëy na doo wéy di exercer mais di nga am loo xamante ni yaa ngi koy wéy di ko am Ablaye lu tax ñàkk yamala ba ñu am ci réew mi ci wàll woowu hmm. loolu dañ koo doon Chérif ci yi nga xam ne noonu la administration suñu administration noonu lañ ko móolee hmm. dono bi mooy administration coloniale wala d'inspiration française mooy doxee noonu rawatina ci corps d'élite yi nga xam ne ñoom ñoo tënk fonctionnement wu li administration mën nañu wax ni sax wata taxas wet la ndax gis nga réew yi nga xam ne administration yi ñi ko yore ñooy faral di bokk fu leen di tàggatee ñooy bokk doxalin xëy na ñooy inspiré li nga xam ne mooy doxalinu réew ma yokk ci nag léeg-léeg mën na doon péete bu am ci seen ci seen li nga xam ne nii moom la ñuy bëgg di doxalee ba tax na li tax nit ñi du ñu yem mooy ñoom ci seen wàllu côté xëy na dañ teg seen bopp dinañ jox seen bopp privilège yoo xam ne man ak Modou Fall mënuñu koo am ci wàllu yi nga xam ne moom la ñuy liggéey muy enseignant bi muy ki nga xam ne mooy liggéey ci l'hôpital ak feneen ak feneen mais loolu inspiration wu administration France bi nga xam ne nii suñu lu bëri noonu lañ ko móolee ni ñu amee seen ENA bi nga xam ne ni mooy formé aux fonctionnaires yi pratiquement ñi nekk ci corps d'élite noonu la ñu amee ñu nit suñu école boo xam ne mooy formé suñu ñi nga xam ne ñoo nekk ci corps d'élite loolu mooy indi souvent euh, doxalin boo xamante ni li ci ñoom du ci ñun. Mm-hmm. mais bu ñu waxee loolu ba pare peut-être am na loo xam ne jar nañu réjouir ci ci li nga xam ne nii mooy xew fan yi bi ñuy téye suñu sujet démb. fekk na problème bu bees bi nga xam ne nii moo feeñ domaine yëgaguñu ko woon donc mu ñëw yokku ci mu mel ni ki fan yi xëyuñu benn jour boo xam ne dégguñu ci koor d'élite yooyu ni mbir xew na fa te xëy na ñu ngi koy teg ci yoon pour leeral ko liñ ciy réjouir mooy problème mu ndono am na fi garde des boo xam ne jaar na fi ci ay li gënoon a nekk problème am mooy àtte ndono yi nga xam ne moo doon am ci tribunalu Ndakaaru juge bu mu xam boo xam ne nee nañ ko kii moo gën a jub ci dëkk bi yóbbu na ko fa léeglee mu jëlee juge foo xam ne sax opinion bi day jàpp ni juge bi daf nekkoon procureur doonul woon def li nga xam ne ni moom la ko gouvernement bi santoon moo tax ñu jëlee ko fa mais moom daf daan jàpp ni juge bi kat comme ñëpp ne nañ moo gën a jub xaaral ma yóbbu ko fi ma gënee am problème fi mu gënoon am problème mooy fi ñu doon àttee problème mu ndono yi ci biir dëkk ndax da ngay gis léeg-léeg ñu àtte nit ñàkkal jël mais jël alalam xañ ko li nga xam ne nii mooy moomeelam te dara du ci génn loolu am na fi amati fi jarul ñu ci jaar ci taarix yu bëri sax c'est connu nit ñi xam nañu ko bu baax loolu it am na fi loolu it loolu it am na fi te xam nga su mujjeewul fenn da ngay yaakaar ni dafa am ñoo xam ne am na lu leen di tegu ci yoon ak ñeneen ñoo xamante ni buñ sàccee nenu ginaar sax ñu teg leen loo xamante ni ni mooy atteb ka nga xam ne def nañ jombe tool noonu donc il faut se réjouir que ci seen biir ñu koy doxal ba xëy na nit ñi di ko yëg parce que nëpp nëppal ko mooy tax ku nekk yaakaar ni boo mun naa ko def tam dara du ci génn mais boo demee ba xam ni non seulement dana feeñ parce que siiwal bi baax na aussi ah du affaire yoo xam ne rek dañ ko war a régler entre euh, le linge sale laver ko noonu bu te kenn du yëg parce que suturaal bu ëpp bi mooy indi nit ki yaakaar ni ah comme nit ñi yëguñu ko mën naa ko def mais loolu lu fi yàgg la réjouir muy am ba pare nag ñu koy siiwal maintenant ñàkk yemale bi loolu moom est-ce que dina fi mës a jóge am na réew yoo xam ne yu mel ni ki France dem nañu ba poser débat ci seen école boobu nga xam ne ni mooy ENA te ñu ne ay euh, souvent sax da ngay gis ay énarque par exemple sax à day am xes xeetu lobby yoo xam ne ni ñoom ñoo téye administration bi léeg-léeg mu ñu amee président boo xam ne nii énarque la da ngay gis énarque dañuy revenir en force ci li nga xam ne nii mooy administration bi léeg-léeg bu président ba jógewul foofu ñu commencé sax di changer polytechniciens yi ak yeneen ak yeneen école yu mag yi di xaw a fëllu tuuti mais loolu y du bien y a du bien maintenant du ci jëm ci tas ko mais fexe ba bañ a tënk li nga xam ne ni mooy doxalin réew mi ak administration. ñàkk boobu suñ ko mënul def sax xanaa kay nañuy teg ca bërëb yooyu sax euh, euh, nañu seeti ñoom benn exemplarité boo xamee ni sax euh, même si perfection mënul am comme na nga ko waxee juge bi fi gën pour mu àtte li gën ñu wër ko ba gis ko même si je pense pas que mu doon lu yomb. waa gis nga day indi glissement bi nga xam ne moom lañ bëgg éviter. am benn boo xam ne ni pombiteer bu nëpp la glissement bi tem mu dem ci ñoom ñëpp noonu lañ mel et ça il faut l'éviter melu ñu noonu ñëpp yàquñu ñëpp it doxuñu ci lu mel noonu ci administration yëpp defe naa ni ñiy doxal ñi ngi doxal di ko teg ci yoon xëy na nag euh, liggéeyu ingrat la booy def sa liggéey presque amul tàccu amul wiiw parce que effectivement loolu nga warloo ak réew mi ñu lay fay pour nga def sa liggéey maintenant ki nga xam ne nii moo deful yoon kooku la mbiram di siiw parce que loolu moo ñu gën a intéressé aussi te loolu moo gën a intéressé société bi mais bu dee juge la boo xam ne nii mu ngi def liggéey normalement bon jarul la bakk jarul la viw jarul la parce que loolu loolu la loolu la fi nekkee Ablaye laaju shérif bi mooy cinquante millions xëy na moom lañ ko toppee mais daanam mooy yóbbu ko retraite forcée mu continuer di am ay avantages mën naa am mu jotaat salaire am nekk ci biti tandis que professeur bi bu ko defoon tey jii def nañ ko mandat de mu ngi ci kaso ba. boole koog coow lu rëy. boole koog coow lu rëy ay sénégalais lañ ñun ñëpp même bu fekkee ni ñoom ñoo nekk ci wàllu justice. tey ndax jotul ñu coppi loo xam ni magistrat bi bu defee naka su dul yoon moom it mu mu dugg fa ñuy dugal ñeneen ñi. waaw ci jàngat bu gàtt amul lu ñuy jàppee ni magistrat bi moo ëpp mérite ci li muy defal réew mi que enseignant bi ndax ci gis-gis bu gàtt sax magistrat bi moo ko formé. donc amul ci gis-gis mérite boo xam ne ëppalee na ko ki nga xam ne enseignant la te nekk ci àll bi mais soo waxee loolu ba pare da ngay gis nii ci suñu jàngat ñun ñëpp dañu naan magistrat bi comme moom mooy àtte yoon wala ki nga xam ne moo nekk ci poste boo xam ne nii xaalis dafay génn lu bari cest à boo ko mettre ci condition yoo xam ne mën naa tànqamlu li nga xam ne nii moom la ñu koy mën a xëccee du baax loolu amal nañ ko fi débat bi fi plusieurs fois gis nga ko ci licence de pêche yi ci ñu ne réew mu ne dafay am représentant ci gaal yi suñu wax moo doon mais kooku bu fekkee ni bu wàccee ci gaal gi ñëw du am lu mu yóbbu dépense am këram mettre na ko ci condition yoo xam ne bu nekkee géej ci bateau tubaab yi xëy na lu ñu ko defloo mu def ko ci wàllu contrôle donc loolu mooy indi souvent ñuy privilégier yenn position yi te lu normal la maintenant ci wàllu def lu dul yoon sanction tegu sa kaw dama jàpp ni ñooñu sax ñoo war a gën a diisle daan. Mhm. citoyen bi nga xam ne. Mhm. fonctionnaire la. il doit être justiciable. Mhm. comme ñëpp non. non même si procédure yi mën na wute. nañ sax xëy daan bi kay moo wute rek. justiciable mooy yoon tegu sa kaw. yoon bu tegoo sa kaw nag dafa am ñaar. ñoom dafa am lu ñuy def ci seen biir à l'interne. sanction disciplinaire yi nga xam ne moom la ñuy def. parce escroquerie boobu est-ce que war naa yem ci rek. vraiment jigéen ci conseil supérieur de la magistrature def ci ministre de la justice dogal ñu ñu def ko ñu def ko retraite d'office yi xëy na war na dem ci yoon ci ñi nga xam ne nii ci ñoom la. ñoom la toll mais waa ñi borom borom cinquante millions yooyu ñoom seen cas après fan lay mujjee. waaw souvent ñooñu daaw dañu daan wéet ci seen i cause mooy li ñu wax ci njëlbeen dañu daan wéet ci seen i cause parce que daaw ñu am ñu jooyee parce que système bi moo fermé woon de telle sorte que. xëy na magistrat bu ñu joxoñ moroomu magistrat am mu nëbbal ko loolu am na fi amati fi yàgg na fi xëy na nag du ñëppay nëbbal seen i nawle ah, du kes voilà mhm. loolu lu mën a nekk la mhm. mais pour def mu ne fàng te nit ñi amuñu fu ñu ko jooyee loolu moo fi yàggoon mhm. tey ñooñu nga xam ne ni escroquerie tegu na seen kaw mais mën nañu layoo te bu boobaa yoon day tegu ci kaw ki nga xamante ni mooy magistrat mu def ko ci cadre liggéeyam nag mais mayu ko immunité xamuñu fu mu amee immunité boo xam ne nii. bu defee ci cadre yoonam comme député boo xam ne nii bu defee ci cadre yoonam parlementaire am pour nga topp ko day difficile mm. loolu fekk ci magistrat beneen cas bi maa ngi dégg démb ñu naan quatrième arrestation maanaam ñeenteelu yoon ñu koy jàpp man je me demande <laughs> première <laughs> deuxième troisième ba muy am quatrième arrestation est-ce que waroon nañ agsi ak moom fii est-ce que du ba mu ba mu njëkkee def imitation ba ñu xam ne moom moo def boobu waruñu woon ñu ko gars yi di wax dóor ko mu daanu waaw boobu ci waa domaine mais foofu li nga fay gis mooy ñàkkoona euh, moom la ñu moom laa wax ci njëlbeen ci dañuy réjouir ñuy jël ay décision di ko arrêté tey waxuma arrêté ci wàllu justice mais jéem a leeral yëf yi li daan am mooy nëpp nëppal ak taf tafe parce que c'est comme ça corps yooyu dañuy du ñu bëgg lu lu gàkkal seen seen der de telle sorte que parfois xëy na nëbb ko sax wala lijjanti ko ci lu kenn yëgul moo gën a yomb def ko ci penc mi mu ne fàng parce que dañuy jàpp ni bu ne fàng rek mën na yàq deru ñëpp. Mhm. effectivement nit ñi aussi ils ont tendance à faire ce glissement là nga ñoom te maas nuun boobu warul xëy na kenn la ci ñoom koo xam ne nii def na ko bu ñu jógee ci ñoom pour leeral ko c'est une très chose mais li ngay jàpp mooy xëy na du moom rek. Mhm. système ba xëy na am na nu mu doon fonctionner léegi léeg boo ko gësëmee lii tax ngay ne mooy da ngay gis ni fa mu nar a dem dafay sori. dafay sori. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu mooy tax souvent bu ñu gësëmee mu xaw a dëgër ñu bàyyi. Mm-hmm. ba fi président de la di wax ni dama teg sama kudd xëy na du woon rek caagan ña nga xam ne nii ñoom la gis ni ñoo laale ci yëf ya nga xam ne nii teg na ci concam mais xëy na yaakaar déflagration bi mu mën a am. ak fi mu mën a jëmee souvent loolu mooy tax yu bëri duñ ci mën a xuus ci des fois ba kii nga yëg ci sa bopp <laughs> voilà boo ko naree yëg ci sa bopp mais affaire affaire magistrature bi du lu bees parce que amoon na fi même cas fi doon tudd mbiram corruption ba benn soxna boo xam te même sanction bi leen ko teg anticiper le traité am na ñoo xam ne setaloon nañ ci seen der kon duguleet non duguleet muy am duguleet muy am ay benn benn la nag heureusement d'ailleurs peut-être que cas yu avéré yi aussi ay benn benn la parce que parce que cas yi su bari woon ba ñu ne corps bi yëpp dafa nëpp loolu musiba la heureusement ay cas isole la mais cas isole ci corps d'élite warul am parce que ñoom dañ ñoo war a gën ci doxalin parce que loolu mooy seen sas euh, am na ñoo xamante ni xëy na mën nañoo wàcc yoon ñu tegaat leen ci yoon yomb na mais ñi nga xam ne ay corps d'élite lañ dañu war a irréprochable am exemplarité boo xam ne moom la ñuy woote parce que loolu moo leen wutalee ak citoyen bi nga xam ne ni mu ngi ci poste liggéeyam te xëy na bo ñu yaakaar ni war naa mën a jeng bu jengee it yoon tegu ci kaw. Ah, mais euh, tamit euh, mooy ça revenir ci question la doon posé léegi rek euh, li leen def corps d'élite seen jàng moo leen fa yóbbu mais pas valeur. la plupart du temps. <laughs> te <laughs> nit je pense que li gën a ëpp ci solo ci moom mooy valeur bi soo ko amul rek ak loo am xam-xam xam-xam xam soo demee xeetu njombe yu mel nii lañ fay gis. waa mais xam nga nag Cheikh amul fenn foo xam ne nii dañ naan. dañuy natt valeur nit ñi ba pare soog leen a soog leen a nommé wala soog a accès non mais jàng mën nañ mën nañ ci jàng mi après dañ ci war a teg valeur bi. waaw mais xam nga nit day soppeeku am na koo xam ne valeur bi nga xam ne moom la wootee. ci bi muy euh, nekk ci yoonu wut. du bokk ak valeur bi nga xamante ni nii feeñ na. ci yoonam am na koo xamante ni nii vraiment ba muy wut. dafa exemplaire. waaw kooku kooku nan nga koy nattee. Mm-hmm. am na koo xam ne nii li ko détourné aussi mooy tentation bi. absolument cest mu nekk ci position boo xam ne li muy gis mu koy romb gauche droite amu ci doyadiwu maandu ci. Mm-hmm. donc kooku boo ko doon bëgg natt ci valeur. ci ba nga xam ne nii ci lañ ko war a tàggat di nga di nga def erreur. c'est-à-dire moral ak droit sax dafa wuute dañuy wax ni faral di wax ni boo bëggee juger nit ci moral rek wàcc nga droit. Mm-hmm. te moral mënoo ci condamné nit xanaa kay mën nga ko ci xarab mën nga ko ci xarab ne li nga def rafetul waaye rafetul bu euh, jubul wala teggi nga yoon parce que yoon lu mu daanul rek. Mhm. dañuy jàpp ni dagan na ci wàllu yoon. naka la mën a def ba euh, ñu yemale ñëpp bañ a àtte nit ñi ci seen doom ba tànk ci seen gëdd. <laughs> bu doon bu doon France ma ne la tas école yi yi nga xam ne ñoo nekk di créer système boobu nga xam ne système élitiste la. Hmm. te loolu vraiment inspiration bi ñu ngi ko jëlee ci ñoom. mais ñoom dem nañ ba gis limite bi. Hmm. limitu c'est-à-dire am administration boo xamante ni dafa am ci loxo ñoo xam ne ni ci ñoom la nekk mais du solution aussi parce que à la kuléal foog ñu tàggat haute administration am ay ñu am ay référence ñoom foo xam ne fa la ñuy fa loolu mooy seen repère mhm. maintenant faut pas que mu constituer li nga xamante ni ni mooy comme euh, lobby bu pour utiliser un terme boo xam ne moom la nit ñi gën a xam mhm. faut pas que mu nekk alumni club aussi gis nga am na fi école yoo xam ne nii seen i seen i association seen i amicale mhm. dafa am doole am doole boo xamante ni nii mhm. léeg-léeg bu kenn ci ñoom fëlee ba am poste responsabilité mhm. da nga gis day fës ci ah ci ci corps administratif bi ci ñeneen ñi nga xam ne ay compagnons mais loolu ñu ngi koy tooñee les anciens enfants de Touba <laughs> ñoom surtout surtout biñu ñoom surtout bi ñu demee ba am ay anciens ay bi ñu demee ba am ay président yoo xam ne nii fi la ñu jaar d'ailleurs seen amical bi ci la gën a amee doole parce que dañuy jàpp ni ay président yeneen ay président yeneen pays ah. Hmm. pas Sénégal def naa Sénégal amuñu président boo xam ne ah, en temps de tour la woon. ministre ay généraux voilà mais ah. mais justement ay président ay kéréku ak yooyu. Hmm. da ci période yooyu. même au ñu gën a am sax ñoom yoon pour gën a am doole. Hmm. pour gën a taxaw mais loolu c'est très normal mm. après faut pas que mu dérive rek ba nekk un groupe de pression wala un groupe un lobby boo xam ne nii watata xasat lay doon voilà euh, Ablaye gis nañu corps de yu bari nag euh, pour ñuy euh, autoréguler wu dañuy faral di am ay ordre te yaa ngi wax ni yu bari nëpp nëppal def ci faral di am est-ce que ordre yooyu tey jii mën nañ leen remetre en question ah, mais bu baax mën nañu remettre en question fonctionne parce que ñaar moo ci am. muy ordre buy jubal wala ordre boo xam ne day considérer lobby yi espèce su lobby parce que gis nga débat bi posé wu fan yi ci pharmacien yi. ci am officine. mooy coow lu rëy loo xam ne ni ordre mënu ko régler parce que moom lañ ci joxoñ ci péete faralaate ci diggante ñaar ñoo xam ne nii xëy na légitime nañ war a mën a ubbi pharmacie loolu ordre su ko mënul regle mooy ordre. taxawatul ci place bi nga xam ne nii foofu la doon taxaw léeg-léeg da sax am na ay corps yoo xam ne amuñu ordre mais amical la ñu am boo xam ne nii association la du caagan am na loo xam ne nii moom moo warloo digganteem ak membre am dañu fay adhéré mu neex leen bu leen neexul du ñu adhéré alors que ordre ñëpp lay tegu ci seen kaw loolu aussi mooy différence mais ñaar moo am ordre bi léeg-léeg mu taxawee yoonu ordre pour doxal ordre mais ordre bi warul mën a doon aussi transformé en groupe de pression lobby boo xamante ni nii xëy na am na fi am na fi am na fi yeneen i quoi parce que mën nañ leen tudd. boo jëlee par exemple notaire yi. Hmm, mais mais mais loolu sax à réew mi bu ñu tollee ci débat <laughs> bu ñu tollee ci débat étude bu bees bu ubbi même avocat yi alors que jàngal nañu nit ñi cest à lan mooy xalaat yi euh, yegg fenn foo xam ne ñu ne lii rek la war a ubbi ci ay étude waruñu cee yokk dara mais nit ñi bu ñu soxlaa ay étude fu mu nekk ci mais ci mais ci réew mi et puis ñu jàngal nit ñi ba ñu am ko mat ko. loolu est-ce que débat war naa nekkati ci ne non ñi fi nekkoon rek ñoo am droit ubbi war ñu cee yokk yeneen. Euh, foofu la toll. te groupe yooyu dañoo puissant de telle sorte que. ñoom ñooy inspirer réglementation bi. parce que ba léegi. loolu verrou boobu mënul sauter. merci beaucoup Abdoulaye bi am na solo. correct correct moo ko tënk. <laughs> ordre correct ñu waa correct ah ñu ngi ñu ngi ñu seen waar ci mbir mi baadu euh, professeur. Makhtar Omar Gueye euh, Omar Gueye mooy sunu gan professeur ñu ngi lay nuyu. maa leen di fay. Mhm. jërëjëf ci dalal bi. très bien egsi nañu ci invité bi léegi léegi ñu sóobu ci.